Sénégal 24 mbokki internet yi ñu ngi leen di nuyu ci seen euh, plateau spécial Covid 19 comme ni ñu koy defee saa su nekk euh, bi euh, Covid 19 ñu koy wax coronavirus duggee fii ci Sénégal ba léegi ñuy waxtaanee lépp luy résultat jóge foofu ci ministère de la santé de l'action sociale. waaye tamit di waxtaanee li nga xamante ni moom mooy actualité jëm ci wàllu Covid 19 du ma ci wet Moustapha mbay laa ci àndal sama naataango bi comme ni ñu koy defee. Euh, tous les jours mais Moustapha bala may ñëw ci résultat yi dañuy euh, naqarlu li am démb muy décédé euh, bi nga xamante ni am na lié au Covid 19 muy benn benn benn mag. Euh, bu nekk foofu ca Louga am 74 ans moom démb la ñàkk bakkanam ci wàllu coronavirus ñu koy jàll waa Louga yëpp di ko jàll waa Sénégal yëpp di ñaan yàlla mu yem mu yem foofu safaa ñu commencé foofu mu bàyyi la nga def ci nga wax ci rek ñu soog a ñëw ci résultat yi. maa ngi lay nuyu Mahfous di la jaajëfal ci comme niñ ko baaxoo di defee rek. Euh, dañ koy doore tamit ak tiis parce que ni nga ko waxee démb si guddi la ñuy yëgal benn góor gu fi bàyyi ko nekkoon fële ca Louga yàlla moom ko moom mu ngi tolloon si soixante-quatorze ans jàngoro ji moo ko yóbbu ñu fàttali rek ki ko wàll tamit mooy cas communautaire bu ñuy wax cas communautaire ñii di ko kii ñi di ko xeeb cas communautaire bi amoon lu Louga mooy bi ñuy wax riche commerçant bi yàlla def na kooku moo ko contaminé ba góor gi mujjee ñàkk bakkanam ni ki démb si guddi donc bi mu ko defee am na sax ñu wax ne dafa yéex a dem kër docteur bokk na ci li waral mbir mi aggravé wu këram ba mu doog a dem. donc ak euh, at yi mu am. Mm-hmm. donc euh, mu doon ay facteurs yoo xamante ne boo ko combiné rek euh, dafay jur loo xam ne daal moo indi l'irréparable ñi ñaan yàlla rek mu xaare ko àjjana tey wax nit ñi ñu gën taxawaat xam ne jàngoro ji mi ngi fi. Mm-hmm. kon mi ngi noonu dañuy daal di ñëw dem foofu ci ministère de la santé et de l'action sociale daal xool résultats yi nga xam ne si moom moo tukkee foofu ca. Euh, institut euh, Pasteur euh, ginnaaw test yi nga xamante ni def na ko 482 la ñu réalisé tey jii 30 yi ñoom ñoo ñëw nekk ay cas positif mu nekk vingt 26 cas contact suivi ak 4 cas communautaire 4 eh, cas communautaires yi nag mi ngi jugee tey foofu ci Touba. kon Moustapha jamono ji may wax 442 euh, cas compte euh, cas la ñu am yoo xam ne suñu déclaré nañ ko positif depuis euh, mbas mi dugg fii ci Sénégal mu nekk 253 guéris la ñu am mooy ñoo xam ne si ni wér nañ ci feebar bi juróom-benn yoo xam ne si ni ñàkk nañ seen bakkan ñu ñaan yàlla mu yem foofu benn évacué ak 182 yoo xam ne si ni ñu ngi ci hôpitaux yi ñu leen di amal li nga xamante ni moom mooy ay traitement Moustapha. Euh, Moustapha loolu lañu fi am tey ci ay résultat mu nekk euh, loo xam ne si nii tey buñ ci ab euh, ci jàngat ci seetlu gis nañ ni cas contact suivi yi bëri na lool waaye cas contact communautaire yi aussi bëri na parce que comme ni ma koy waxee man 20 cas suivi moo ma gënal benn cas communautaire. waaw gis nga dafa am beneen constat bu ñu ci defaat aussi mooy ñaari fan yi dañoo gis ne ñaari fan yu diis la. Mm-hmm. ñaari fan yu diis la parce que démb bi ñu amee 35 xaw ma 34 tey ñu ngi am 30. donc mi ñaari fan yoo xamante ne boo xoolee rek ci wàllu jóg nañ ci benn cycle mooy cycle bi ñu doon am 12 15 14 11 9. léegi ñu ngi ci cycle trentaine bi donc pratiquement duñ ko doublé mais aussi mu doon ñu am benn gis-gis buñ ci mën a am rapidement mooy ni test yi tamit dañoo yokk parce que ay 400 la ñuy wax ñaari fan yëpp 400 et quelque lañ def ci test mhm. donc ce qui veut dire que bu ñu ko diviser woon doon yem donc ñu ñu jàngee foofu rek lu ñu gën a yaatal test yi rek dina gën a mën a tax ñu teel a am nombre bi nga xam ne ñooy ñooy dund ak jamono jàngoro ji jamono jii ba mën leen amal prise en charge ba ca war beneen mbir mi ñu wax euh, li nga xam ne moo gën a fees ci mbirum tay bii mooy cas communautaire yëpp Touba la ñu bàyyi ko cas communautaire yëpp Touba la ñu bàyyi ko benn benn localité ah. ñu rappelé ni tamit euh, Sénégal bu bu Ndakaaru weesoo Touba moo ñëw en terme de population ak en terme économie sax Touba dëkk bu am doole la fii ci Sénégal uh-huh, uh-huh, uh-huh. bëri lu muy représenté côté religieux côté boo xamante ne côté yu bëri mm-hmm. Touba kenn mënu koo jéggi ci Sénégal kon tey ji lépp lu am Touba dafay dafay dafay dafay interpeller Sénégal gi yëpp de façon général mm-hmm. parce que bëri na ñoo xam ne ñi ngi fii mais Touba la ñu bàyyi ko mm-hmm. bëri na ñoo xam ne ñi ngi ci yeneen région yi Touba la ñu bàyyi ko mu doon euh, capital économique bu am solo boo xamante ne mm-hmm. euh, nekk na ko fii ci fii ci fii ci Sénégal ba tax na war na mën a interpeller ñëpp jamono ji li fay xew parce que cas communautaire comme ni ñu ko expliqué nii léegi ñeenti ñu am tey ji bul xam fan ñii di ñëw ñaata cas la ñuy indil. ak fan lañ ko jëlee. ko jëlee parce que ku nekk rek buñ buñ buñ ko toppoo cas contact yi boo moytu une une di d'une dizaine. dinañ dinañ topp sa ginnaaw. Mm-hmm. ñu quarantaine leen wala ñu def leen confinement. donc ñooñu ñëpp après boo leen toppaatee mu am ñeneen ñuy judd si ñoo ñoo xam ne am nañ kaa bi mm-hmm. mu doonaan beneen multiplication de cas boo xam ne mi ngi ñëw suñu kanam mm-hmm. te loolu lépp buñ ci buñ ci teelul teg garoo buñ ko teelul baare mën nañu yóbbu foo xamante ne ëllëg dinañ dem ba situation bi daf ñuy dépasser Touba et je pense que tey jii li xew ni autorité nga xam ne ñoo yor santé bi dinañ jël seen i mesures teel cee taxaw bu baax a baax a baax ba nga xamante ne tamit dañuy am beneen taxawaay exceptionnel bu ñu fa amal léegi tëj nañ marché Ocass bi c'est normal am nañu nee sax dafa yeex parce que waroon nañ gën a mën a teel a jël mesure boobu su ko defee ñaar ñi nga xam ne ñi ñi fa mujjee génn mii bijoutier bi di marchand ambulant bi di keneen ki fa doon jaay aussi bi ñoom ñëpp amaana buñ ko teeloon tëj ñoo ñëpp contamination bi du leen fa fekk parce que cas communautaire ci marché dafa garaaw. dafa garaaw dafa garaaw mën koo jox nit mu dem xamul foo ko joxee. ku ñëw benn point de rencontre la ku ñëw daanaka après dañuy demaat ci yeneen point yoo xam ne si ni ay points différents ñu yóbbu li nga xamante ni moom mooy mooy feebar bi. en tout cas doy na waar euh, foofu ci Touba donc war nañ ci jël ay mesures Moustapha parce que Touba aussi bëgg naa ñu taxaw fa parce que garaaw na trop 4 cas communautaire ci benn dëkk. si si si si si benn jour aussi tamit ñu si benn jour aussi ñu ñu compté ko. Hmm. te ñooñu xamuñu fan lañ ko jëlee loolu aussi il faut ñu interpeller bu baax ñi nga xam ne si ñoom ñooy autorité yi jël ci ay ay mesures. Hmm. xaw ma yan mesures lay nekk rek jël ay mesures yoo xam ne si nii ferme. xam nga am na am na ñu ne sax fi ñu toll nii euh, mesure gest barrière yi barrières yi ñu ngi koy respecté bu baax a baax am na ñoo xam ne ñu bëri ñu ngi ñu ngi commencé takk takk masque yi. di def ay jéego yu am solo ci côté boobu di ñii ñi di fexe ni ñi dara raxas seen ay loxo yëpp mais dafa am loo xam ne pour man nañ fa def benn opération bu mag bu am solo c'est-à-dire tester le maximum possible ñu tester leen mais test yi tamit xam nga nit ñi dañ si demee ak euh, dañuy xaw a nekk en balance tuuti li ko waral mooy mun nga test nit ki tey doo ko gis ñu dem quelque temps après nga gis ko donc loolu moo tax jàngoro ji doon affaire boo xam ne dafa insaisissable kenn mënu koo jàpp kenn mënu koo tënk xam nga bu loo xamante ne bu xësee boo xësee ba testé nit ki amu ko rek jeex na euh, bu doon comme yeneen genre jàngoro comme sida la nga xam ne xam nga li koy jox wala nga ki bu ñu la testé amoo ko rek après waa période bi di nga jàpp ne mucc nga parce mm-hmm. defoo loo xamante ne wala njort nga def loo xam ne moo la ko may mais jàngoro ji mën na dugg sa di nelaw tolluwul étape boo xam ne bu ko testé dañ koy gis mu bàyyi la fa nga bàyyi ko fa ñu testé ko doog koo gis. donc ce qui veut dire que mbir la boo xamante ne euh, nañ nañ wëyal test yi parce que loolu tamit bokk na ci li yombal yombal xeex bi bu ñu wëyalee test yi ñu gën a ñu yokk limu test bi. yokk limu test bi bu ñu yokkee limu test bi aussi tamit ñu gën a fexe fexe ba dem beeg dikk biir Touba ñu xool luñ koy luñ koy lijjantee. parce que jàngoro yi tant que mi ngi circulé dugg ci artère dem di ñëw dafay indi problème. Mm-hmm. Touba du dëkk bu ndaw nit ñi dañuy dem di dikk di baagante nañ fexe ba demeleef bikki ñu fexe nuñ nuñ nuñ ko tënkee baagante yi nit ñi toog fexe ba nit ñi toog même bu confinement général kenn mënu koo am mais ñu fexe ba def ci bopp askan wi kilifa diine ak ñëpp wax ñi mënu ñi nga xam ne amaana mënuñoo génn seen kër ñu génn dem képp koo xamante ne war nga mën a toog sa kër du la wàññil dara nga toog suñ ko defee rek wàññi dembeex dikk bi parce que dembeex dikk bi mooy waral jàngoro ji tas dugg fii génn fee dem fële bu ñu tëjee marché te rassemblement di continuer am du faj dara bu ñu tëjee marché te nit ñi ki nekk fii jóge fii dem jóge ndaamaatu dem daaru xuluus ki jóge daaru xuluus jóge fa dem boori xel comme ba fu nekk nit jaar fa dem donc dafay doon loo xamante ne euh, mën na doon daal euh, jur musiba bu fekkente ne gënuñoo wéyal sensibilisation bi gën a fexe population bi fexe ba ñu ba ñu ba ñu ba ñu ba ñu toog mbaa ñu wàññi seen i bi mhm. euh, Moustapha di résultat Euh, avril 2020 ñu ñëw ci benn analyse bu ma bëgg ñu def ko ci euh, li nga xamante moom mooy cas contact ak euh, cas contact suivi ak cas communautaire parce que bi ñu commencé am cas communautaire yi muy bëri ci la cas suivi yi bëri donc am na benn rapport gis nga conséquences yi nga xamante ni lii di cas communautaire yi ñoom ñoo koy ñoom ñoo koy indi parce que nombre bi ñu doon wax ay 15 dañ doon am léegi doublé na ci trois quatre jours donc cas communautaire yi Euh, tamit loo xam ne day élargir euh, maanaam euh, yaatuwaay ak ak tolluwaay li nga xamante ni moom mooy feebar bi tamit. ñoo ñoo ñoo mën a am jàngoro ji loolu mhm. au fait war nañ ci war nañ ci def xam xam nga biñ koy door dañ ko doore ak ay cas importé. cas importé yi dañ ne foofu sax danga may may benn parenthèse bu ndaw ñëw ci côté communication et publicité yi. Mhm. parce que il est inadmissible ba jusqu'à présent fi ñu toll moom ay publicité yoo xamante ne avant ka avant corona dugg Sénégal mi daw ba tey wala bi mu duggee tuuti spot yi ñu defaroon ñu continuer di ko dawal amul benn réadaptation bu ñu def par rapport ak communication boobu man je trouve ça inadmissible parce que bu fekkente ne da am danga nga toll benn jamono amoo benn jàngoro mu fekk se la ñuy wax ay cas importé jamono jooju dañ naan boo jógee si dëkk boo xamante ne Euh, dafa am jàngoro ji nga nemmeeku sa yaram di tàng sa gorge di metti sa température yi expliqué et cetera et cetera demal kër docteur mais jamono ji fi ñu toll nii pour man communication bi lépp lépp fi ñu ko waroon gën a basé actuellement nii mooy wax nañu ci cas communautaire yi parce que cas importé jóge na fi donc kon taam dépassé nañ ko mhm. donc booy communiqué kon da nga koy ak da nga koy adapté par rapport ak situation bi nga nekkee mais mënoo ne yor benn sport pendant un mois et quelque wala deux mois bi kese di daw ay évolution am na am na dëkk yoo xam ne fi ñu doon ñoom lañ gën a touché yooyu pour man waroon nañ koy réadapté chaque semaine au moins ñu adapté communication réadapté sport yi gën ko fesal bu ko defee population yi di ko gën a mën a dund ak ñoom et puis panneau publicitaire yi yéegi si mbedd ñu def si affaire yoo xamante ni yenn yu ñàkk njëriñ la ñu gën ci sensibiliser nit ñi ministère bi jënd ko wala état bi jënd ko mhm. sensibiliser si nit ñi xool fexe boo xamante ni tous les moyens sont bons pour que la communication passe mhm. et je pense que loolu dinañ ci bàyyi xel bu baax a baax gën a réadapter encore une fois communication parce euh, ci la bokk sa sa sa sa question bi nga posé ni léegi mooy cas cas cas suivi yi ak waaw xam nga ki nga xam ne dama maa ngi doon wax léegi ma ne importé bi ñëw mm. souvent fi mu parce que importé yi ma doguma la mais importé yi ni noonu def instant bi noonu la cas communautaire yi doon def parce que importé yi dañ doon ñëw nekk sa njaboot xamoon ne am nga am nga jàngoro bi ngay wër di nuyoo ku nekk nga jox jàngoro bi te xamoon ne yow am nga ko donc euh, même effet yi la nga euh, même effet yi la cas euh, communautaire yi parce que nit ki daf koy yor xamul ne yor na ko di dugganteeg nit ñi di dogg seen waa kër di dem ak ñi nga xamante ni ay dëkk ay ay ay donc ba wàll leen ci xam dara. mais xam nga conséquences la xam nga xam nga importé bi fi mu tane mooy ki jóge fële am na njort bi. Mhm. xam nga ki jóge France. te jii boo jógoon France wala Espagne wala wala Italie. Mhm. dene l'instant nga ñëw toog boo xawee sëqat rek man damay daw. Mhm. duma la jege wala du la xool. parce que je me dis que ah saa waay ñu ngi déglu Bakary suñu naataango bu nekk fële record mm-hmm. mi ngi expliqué ne bi mu ñëwee ci bureau ni bi ni affaire manifesto ba ñi mu doon liggéeyandoo nekk bu subaa ndax doo dem institut Pasteur mm-hmm. donc ce qui veut dire que dès l'instant am réflexe boobu mm-hmm. ne demal nga seeti ndax corona bi nekku si yow mais bii tel n'est pas le cas da ngay dëkk nit ki mi xëy di wàcc dem di ñëw yor jàngoro ji mën na koo tasaare ci kër gi tasaare ko ci koñ bi balaa moo balaa balaa balaa ñoo détecté ne kii mi ngi doomu jàngoro ji ak oto yi muy jël gépp loolu moo tax mu gën a garaaw xam nga waaw loolu moo tax mu gën a garaaw te kële bu ñëwee bu bu bu xamee ne rek mbir maa ngi wala bu amee dut rek bu yëgsee rek am na ñoom dañuy yëgsi sax commencé quarantaine seen bopp di moytu foofu cas contact moo taxoon ba tey contamination foofu garaaw woon tane mu tane woon mais bi ñu duggee ci cycle cas communauté dafa parce que ku nekk rek boo ko remonté nii gis après une dizaine une vingtaine mooy topp ci ginnaaw bu ñu jëlee exemple Modou Modou Touba bi bu ñu exemple Louga ñu koy am ci marché ñu koy am ci marché exemple bi ñu mu ko wàll membre famille yi mu ko wàll donc ce qui veut que toujours am na rapport léegi nag parce que si ñoom la ñuy jógee ñëw. te loolu lépp encore une fois suñu moo ci moo ci moo ci moo ci moo ci yëg bu metti parce que ñooñu ñëpp dañu leen yóbbu ci ay di leen dundal du doon lu leen lu gënal état bi. mi situation boo ne dugg nañ ci mi gën di metti di gën di compliqué ñiy ñaanaat ku nekk rek encore une fois mu def li ko war euh, ba nga xamante ne yàlla mën na ko suturaal mu mucc ci jàngoro ji. alors mi ngi noonu seen plateau Covid 19 la fii ci Sunugal 24. Euh, xam naa li ñu dese ci ay euh, minutes euh, bariwul Moustapha dama lay bàyyi comme ni ñu koy defee tous les jours maanaam wàllu conseil ak recommandation jëm ci wàllu Covid 19 ngir mën ko mën ko xeex fii ci Sénégal. waaw li may fi may fi may jeexalee rek tey mooy damay ñaax encore une fois rek population bi mhm. ñaax askan wi ku nekk rek xam ne jàngoro ji jombul kenn xamul baadoo la xamul ku ñuul xamul ku xees xamul ku am xamul ku ñàkk. Mhm. li si gën a doy waar nag mooy jamono yi suñu mag yaa ngi dem ñetti fan ñetti mag dem nañ ci dimanche ba léegi dimanche ba mercredi donc mii mbir moo xamante ne te ku nekk am nga papa boo amul papa am nga yaay bu la bu la sa papa ak sa yaay wane ginnaaw am nga maam wala boo amul maam am nga koo xamante ne ku la jegele nga koy maamoo waaw ku nekk rek suñu kër am na mag boo xamante ne boo sañoon a kanam nga mm-hmm. ba tax na kon ku nekk rek xam ne dañuy faagaagal mag ñooñu mm-hmm. dëgg la nag du loo xam ne yaa koy jox mm-hmm. ñoo xamante ne dañ koy jàppee nattu parce que ni mu leen dalee la moytu nañ ba ba tëdd si ñag ba jàngoro ji ñëw dugg leen waaye nag na nga moytu rek moo gën problème loolu lañ mën a wax jamono ji takk masque yi ni ñu ko waxee di raxas loxo comme ni ñu ko waxee di dandante di sorante comme niñ comme ni ñu ko diglee eh, di gën a dooleel suñu ñu nga xam ne ñoo nekk eh, personnel soignant yi parce que ñoom ñi ngi def ay jéego yu am solo bu ñu leen découragé loo parce que am na fu jàngoro ji toll dañuy découragé te ñaanuñu ko yàlla aywa kon mi ngi noonu xanaa di euh, gën di ñaax rek euh, population bi euh, di gën di ñuy gën di dolli góorgóorlu bu baax a baax ci recommandation yi nga xam ne si waa kër docteur nañ ko ngir xeex li nga xamante ni moom mooy coronavirus fii ci Sénégal ma rappelé résultat yi nga xamante ni moom la ñu am tey ji yemoo ak 22 avril 2020 Moustapha sur 482. test réalisé foofu ca institut Pasteur 30 yi ñoom ñoo ñëw nekk ay cas positif mu nekk vingt 26 cas yoo xam ne si nii ay contact suivi la mooy ñi nga xam ne dañu nekk ak dañu nekkoon ak ñi am jàngoro bi ak quatre yoo xam ne si nii ay cas communautaire lañ te tey jii nag ñi ngi leen amee foofu ca Touba. Euh, jamono ji may wax nag 442 cas la ñu am depuis euh, jàngoro ji dugg fii ci Sénégal 253 ñoom ñoo wér ba ñibbi ci seen njaboot juróom benn nit ñoo ci ñàkk seen bakkan ñu ñaan yàlla mu yem foofu benn nit la ñu mooy koo xam ne dañ ko yóbbu ci euh, réewam 182 patients ñoom ñoo nekk jamono ji may wax ak yéen ci hôpitaux yi ngir ñu leen di amal ay traitement ngir ñu mën a wér dellu ci seen njaboot di remercier bu baax suñu technicien bi nga xamante ni moom moo nekk ci ginnaaw caméra yi benn nit ñetti caméra kon ni ma ko waxee tous les jours waaye tamit du leen fàtte yéen ñi nga xamante yéenay safoo di seetaan suñu ay programme fii ci Sunugal 24 ñu ngi leen di jaajëfal di leen jox dig daje suba beneen plateau ak yeneen résultat